li taxaw ak euh, jëwriñ mi nga xam ne moo jiite cellule journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba mu mel ni bis bi yàgg nañ ko waajal tey suñu borom def na ni tey egsi nañ ci muy journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba neen ngeen ko waajee tey ba egsi si bis bi waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi siyaar bu baax di tuub bu baax si fànn yëpp di ñaanal bu baax sëñ Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool mu yàgg ñoo jiite ah di ñaanal mbokku taalib yëpp di santaat bu baax ñëpp ah, di santaat gaay yi bu baax seen comme ni nga waxee ñu ngi si douzième édition journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba gannaaw kon nañ ko jël kon nañ ko daan defee rek noonu lañ koy defee jamono ju ne mu ci am ay coppite ay yees ay ay yeesal ba ñu ko sëñ bi di jox fii la tàmbalee dakaar amoon benn cellule bu ko doon màggal waaye tey alhamdulilah rabbil alamin douzième édition bëri na ay cellules yu bëri yu koy màggal si si mim réew ak bitim réew waaw loolu kon santaat bu baax a baax a baax kon mel na ni murid yi ñu ngi dégg liggéey bi. te te wax dëgg fa yaat ñu ñu koy gën a bëgg sax far kon loolu loolu ay ay jéego la ñu ngi siy santaal sëñ bi bu baax ñoo ne gars yi sëñ bi rek a leen ñor lu baax rek a leen ñor ndax journée mondiale si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dañuy wax naan dafay lu yell dafay lu yell sëñ Touba foo ko natt rek weesu na ko si dayoom kon kon jar na murit yëpp maanaam di porte liggéey bi waaw wone wane wane ko bu baax a baax a baax a baax ndax ndax dañuy wax naan sëñ Touba gannaaw bësam bi mu wooteel suñu borom ah, muy màggal Touba. kon tey jaam ñi jaadu na ñi woo utal ko moom it bés wooteel ko bés boo xam ne ñëpp ko naan jërëjëf ñëpp ko naan jërëjëf xeetu màggin gi màggalin gi nag bëri na anam yu ñu koy màggalee waaye lépp si yiw rek waaw ñi santaat sëñ Muntaxa bu baax at bu ne dañuy yeesal ndigal li si moom waaw mu ñu si ñaanal ak kilifa yi ñu siy àndal sëñ Modou Mamoune Mbacke Fallilu am mboolem kilifa yi féete fii soow ak ak ak ñu ñuy dégg Touba ak fépp fu munti doon. waaw ñooñu ñëpp ñu ngi ànd ak ñun si liggéey bi kon loolu ak cant la te ñu ngi sant bu baax a baax a baax. mel ni ren message bi tamit dafa mel ni dafa jëmaat ci diine lu gën a booloo diine gën a booloo lislaam mu mel ne message boobu am na solo lool ci jamono surtout jamono gi ñu toll. waa hmm. waaw message bi ñu ngi siy sant bu baax euh, sëñ Modou Mamoune Mbacke ibnu Cheikh Modou Fadal moo ñu jox euh, thème bi ñi ànd ko comité scientifique bi te incha allah dinañ ko développé si ay ay ay làkk yu wute ay nasaraan olof ak waaw ci làkk yi bëri daal nañ ko nañ ko développé mu doon thème boo xam thème mondial la ndax thème bi mi ngi wax si euh, l'islam la paix ngi wax si la mi ngi wax si euh, euh, social di wax si xam-xam di si wax naan di si wax si exemple yoonu murit nu ci mel si si jàmm si social ak xam-xam ni ko ni ko diine indee ak murit ak murit gi exemple bi ñu ci indi waaw loolu loolu incha allah mooy mooy temu ren bi waaw ah, sëñ Modou Mamoun Mbacké ko ñu ngi waxtaanee bu baax incha allah nan dañ ko waxtaanee si mbaar ma cérémonie officielle ba gannaaw loolu it am na plateforme boo xamante ne euh, euh, digital la boobu it online la dinañ ko waxtaanee ak borom xam-xam yi bëri si yoon wi waaw borom xam-xam yi bëree bëri nañ ci àddu def ci def ci direct boo xamante ne incha allah waa Bichri TV ñoo koy couvrir. ñuy waxtaanee bu baax a baax ci thème bi ndax ndax aspect bi du marche kese ndax xëy na lii lu symbolique la li ñuy def at bu jot di dox di wax jërëjëfe borom tubaa ndax loolu it dara gënu koo féete kaw jërëjëfe borom Touba ñun de xam nañ ko dara gënu koo féete kaw waaw. loolu aspect bu symbolique la dañ koy def at bu jot daje fii si mbaar sëñ Murtala bi jàng fi alxuraan jàng fi xasida dajale fi mbooloo ànd ko police sax sappoor ñi couvrir ñu ñi dox ndànk di wax jërëjëfe borom Touba jàng xasida it ànd ko kuréel gi di jàng nii buñ noppee ñëpp maase di wax jërëjëfe borom Touba ba keroog mbaar sëñ Modou Bousso Dieng buñ fa àggee ñu mën a développer thème si ay si làkk yi yi mu la wax nii anglais français araab olof espagnol waaw bu ko defee kilifa jotaay gaa ngi fa sëñ Mouhamadou Mamoun Mbacke ibnu Cheikh Modou Fadal yàlla na fi yàgg loolu te wér moom it dina def synthèse waaw def synthèse si discours yeeg yëpp bu ko defee ñaanal mbooloo bi ñi weey bu mbooloo bi waaye tamit mu màggal gi ah ku ne si volant otoom sax wala mu ne si buroom am jëfe boroom tubaa kese am nga yoolu bés bi te noonu la ko sëñ bi nangulee Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg yàlla na ko suñu borom dolli ay leer taaf si ngërëmam moom noonu la ñu ko doon di kaasu kafe ngay jënd sax jox ko say collègue sa bureau sax ngir célébrer ko journée mondiale Cheikh Amadou Bamba da am yoolu bés bi waaw anamu seetlu bi yëpp a ngi màggal journée mondiale bu seex Cheikh Ahmadou Bamba kon dañ ciy wax jërëjëfe borom Touba di si sant sëñ Touba bu baax a baax di sant mboolem kilifa yi fi teew nii kon ñuy wax ne ñi ngi nii di waajal marche bi si kanam tuuti waaw kon ñu ngi ci xaar ñëpp rek incha allah jërë ngeen jëf ok jërëjëf. waaw ah, jërëjëf mu mel ni ku la defal loo loo loo koo mënul fay jërëjëf rek moo war ci moom. waa xam nga Seexul Xadim day kenn ginnaaw bi ma nuyoo. di siyaar ñëpp di siyaar xalifa général kul murit sëñ Muntaxa Mbàkke maa mi nga xam ni mooy mooy suñu bunt sëriñ Tuubaa ñun ñëpp ñëpp murit yëpp kon nag sëñ Tuubaa moom ñu ko ñëpp ko ndax moom dañoo dimbali tey ñu sant tudd ñu sant Paul ñu sant ñu sant ñu tudd Paul ak Jean ak ak euh, Gomis waaye na xam nga bu ñu xoolee maanaam euh, sëriñ Tuubaa li muy defal mun ñu koo fay ndax day day kenn te kenn ki mooy li ki faral di wax mooy Serigne Touba day mën gi mbindéef Rasulullah sallallahu alayhi wasallam day gën gi mbindéef kon nag Serigne Touba ñëpp ko war a sant ndax dafa dimbali àdduna bépp du Sénégal yëpp la dimbali li ñuy def nii nag di ci am ndigal sëñ Sidi Moutar mu jox ñu ndigal. wax mu mel ni ni ko jëruñ ñu waxee rek tey ñu euh, neewaat fii nga xam ne mooy kër Serigne Mourtala Mbacke tombeek juróom euh, fukk ñaar édition muy douzième édition bi nga xam ne ñu ngi koy def journée Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni ñu ko jëwriñ waxee rek Serigne Touba moom dafa defal jaam ñi loo xam ni mënuñu koo faye kon jërëjëf rek moo ñu war ak moom nga gis ni nga xam ne noonu la mbooloo mi di teewee mu nekk douzième édition nag mu nekk loo xam ne lu yaatu la nag nga xam ne tey Dakar fépp ci àdduna bi incha allah dañuy màggal bis bi mel ni Serigne Sidi Mokhtar moo ko joxe woon ndigal waaye tey xalif Serigne Touba fi jaar di Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké yeesalaat ko nga gis mbokki taal bi ñu koy àndee ah bu ko defee rek dañ leen di bàyyi rek ak mbokk taalibe yi ñu daal di tàmbalee fii nga xam ne mooy kër sëñ Modou euh, Mourtala Mbacké waaye dem ba fee sëñ Modou Bousso Dieng ci Padoa comme ni ñu ko defee woon daaw rek kon dañ leen di bàyyi ak éléments yi ngeen xool wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. raditu anil mawla taala allazi rabba wadi wa amnani wa akrimni rabba بمد ذكري وأن يكوننا أو النار وسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سبا أرتل ما دمت حيا وأكتفي tey ngeen jël seen alal yëpp tey def ko ci tey sansa ba tey ji fu jéggi dayo tey yéen gëm-gëm bi ngeen am tey bu leen neexoon tey ngeen nekk ci leneen wala ngeen dem defe ji leneen lan moo leen neex ci mbirum sëñ Touba ba tax ngay ñëw rey seen bopp ah, ñun de dañuy gën a santaat sax ndax fu mu ñu jëlee moo ñu gënal fu fu mu ñu jëmee nax tey ji gëm-gëm la ak Pastef la nax am na mbokki jigéen ñu bari ñi ngi ci biti bokkuñu daayira mais tey bu ñu gisee ñun dañ ñuy naw ndax ñu ngi liggéeyal sëñ bi lu ñu am tamit ba ci yére yi ñuy sol tamit sëñ bi ñu ko gënal waaw ca kaw ca kanam rek ndam rek la ñuy wër ci darajey sëñ Touba rek di ñaan yàlla yàlla defal ñu cat ak ñu ci seytaane rek foo sëñ bi bëgg ñu egg fa ñu egg fa mu bëgg ñu jaar fa ñu jaar fa ci jub ci jàng xasida yi di muslu rek ci seytaane rek yàlla baax na. lan la leen sëñ Touba defal. ah lim ñu defal moom bëri na li ñu defal moom bari na ñu ko wax kenn du ko wax Ahmadou ci xol leneen da caa xajul Ahmadou ci xol leneen da caa nga ne Ahmadou Bamba leneen ci xol dajaa daj dara xaju ca leneen day yàq xol bi leneen xaju ca waaw sëñ Touba rek sëñ Touba donc sëñ Touba képp ba faaw jërëjëfe Cheikh jërëjëfe jërëjëfe Cheikh jërëjëfe jërëjëfe Cheikh alhamdulilah kontaan nañ ndax nee na jërëjëf rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mu mel ni kon mbooloo mi rek daje na comme ni ñu ko waxee woon ci suba ah ñu fas yéene tàmbali fii nga xam ne mooy kër Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke bëgg a dem fee ca Padoa di kër sëñ Modou Boussa Dieng di sant Cheikh Ahmadou Bamba di ko njokkeel di ko di ko di ko di ko ndax Serigne Touba dañoo defal loo xam ne fi toll nii moom mënuñu ko fayee leneen lu jërëjëf jërëjëf Serigne Touba kon ñu leen bàyyi rek ak mbokki taalibe bi mel ni sëriñ bi lañu xaar sëñ Modou Mamour bu sëñ Fallou egsi bu ko defee ñu ànd ak mbokki taalibe bi أناجي في سر وجهل وأرتجي سلائي وإسلائي بالأهل والتربى سللت لولا للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يصف الكربى سللت لولا للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو الأكبر هداني بي ربي وأهدي بنوري إذا ساء ربي سوي البعد والقربى إلهي لا تضايق لي وسلما وجد بامتلال سما والتؤمني تربى لك البر والبار الذي قلت له ففي البر أبن الأمن والتكرم جنبا

naa leen sànq itinéraire bi ni muy demee euh, bokk na ci itinéraire bi nga xamante ni fii la ñuy déparé war a jeexalee fi nga xamante ni moom moo di euh, kër seex Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ñu ngi ko tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadoul Mourtala Mbacke góor yàlla war ko jeexalee ci kër Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan da ngeen topp rek incha allah ci li nga xamante ni moom moo Tawfekh Production ngir ñu ànd ak yéen lépp loo xamante ni rek ànd nañ ko ci jërëjëfe Serigne Touba wax naa leen ni jërëjëfe Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jiili borom Baxdaad dafa wax ni gisul lu ko gën a féete kaw muy liggéey bu am solo mu nekk nag euh, kuréel yoo xamante ni kuréelu xasida yi ñoo jiitu suñu paree kuréelu sikkur laa ñoo ciy topp soxna yi nekk ci suñu ginnaaw di wax euh, jërëjëf kuréelu xasida yi ñooy tàmbali da ngeen ñuy daal di topp rek ñu bàyyi ci xel kuréelu xasida Mamza Jara Mamza Jara Mamza Ibrahima Fallu Jara Mamza Ibrahima Fallu Jara Mamza Ibrahima Fallu si nga xam mooy soxna yi jiite cellule féminine bi nga xam ne ñoo jiite liggéey fi bis bi bu dellu see ban yëg-yëg ngeen am bég sant Serigne Touba dafa nekk mbir moo xam ne suñ ci jubee rek ñu dañuy ànd ak àll boo xam ne duñu xam sax lan moo ñuy yóbbu dañ koy yàqamti tellement que ba nga xam ne weeru koor neex na loolu mais bu ñuy dëgmal yoon euh, kii bi bés bi day day gën a dàq sax que li ñuy yëg ñu daal duñ def lu lool sant Serigne Touba rek bam ñu jagleelee ñu judd rek doon murit judd doon murit rek sag la waxatuma la nag say wayjur doon ko doon le ko dañ koy sant bu wér di sant suñuy wayjur di sant Serigne Touba bu wér di sant Serigne Modou Mamour Mbacké mi nga xam ne moo ñu teg moom moo nekk suñu buntu ci kër Serigne Touba ñu koy sant bu wér di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. ah mu mel ne tey yéen a ngi ci bis bi sant Cheikhul Khadim nan ngeen ñëwee tey. ah jàmm ak ak pasteefum bëree bëree bëri rek tey moom nii yëngatoo nii sëñ Touba amul eh, rek man moom je peux su ñu àndee ak euh, Tawfekh Production waaye ànd ak Pikine TV ak euh, SN Pro euh, di def liggéey bu am solo wax nga ko mu mel ni mars bi. marche pacifique la ndax bokkul marche yi nga xamante ni ñuy door ay lacrymogène bokkul ak marche bi nga xamante ni dañuy marche ngir àdduna mhm. dañuy marche ngir santale Serigne Touba borom ndax Serigne Saliou mos na ko wax nee na ñëpp suñ booloon sant Serigne Touba réew bi dina naat à 93 la Serigne Saliou wax loolu kon bés bii nii war na chaque jour mi am sant Serigne ngir réew mi naat réew mi naatam mu ngi ci loxo Serigne Touba ku mu neex ak ku mu nakare Serigne Touba moo yore àdduna malaka ni dunya axuraan sama Serigne Touba suñu borom a ko jox kon war na yàlla na ñun doomu aadama yi du nooyi di sant Serigne Touba ndax tey jii yéen ñii taxaw yéen média bi lii ngeen war a di fësal lii mooy àdduna lii la ñu war a fësal mooy lan mooy jàmm réew mi di sant Serigne Touba di sant suñu mag yi baax yi rek ci réew mi waaye di wane ay xeex yéen média yi ñaane ngeen naa maa leen koy ñaan ngeen wàññi ko fësal lii la xam ne mooy di sant Serigne mooy li mooy àdduna ñun li lañu am ñun fii ba àllaaxira dañuy sant Serigne Touba. waaw doguma la gis naa sànq bi ñuy door a tourné ci euh, maanaam euh, sànq bi ñuy door départ gis naa ay taalibe Serigne Babacar Sy yore photo Serigne Babacar Sy di jox taalibe ay ndox waaw alaaxaat yooyu nga xamante ni moo am ci diggante ëttu këru diine yi nan nga ko jàngee. waaw soo xoolee mbooloo bi bul jàpp ne ñëpp waa kër Serigne Touba lañ de ndax am na mbooloo yu fi nekk laayeen yaa ngi fi gis naa sama mbokk laayeen ñëw leen laaj leen ma bis bi kañ la mën leen ne tey ni barki Serigne Salim Mbacké yaakaaruñu ku dul Serigne Touba mais ay taalibe Serigne Babacar Sy ñooñu si ginnaaw gis nga ak seen i nataal maanaam bis bi bis si sant Serigne Touba la ndax Serigne Touba day maamu ñëpp du Serigne ñëpp mooy ku tedd ki alxadimiya bu ñu nekk nii jamono toll nii mooy mooy réew mi alxadimiya muy Cheikh Moudou Kara baax mooy yëngal réew mi kon fa lañ toll si sant Serigne Touba rek soo leen fan yi passé yàggatul yàggul Serigne Mountakha lu si eh, mu wax mu soññ si mbooloo bi nañ gën a takku a a jox si bopp Serigne ndax euh, sëñ Abdou Khadre Mbacké nit bis naa ñëw moom du ñaanal di ñaanal di ñaanal gudd fan ñaanal ko lépp waaye bu mu ko ñaanalee nga am ngërëm Serigne Touba daay jor lépp lu mu yor da ko kaa jox yónnee ci néeg mu leen jox leen ma ko lépp lu mu yor ndax lu ma ñaanal adduna soo fi yàgg te amoo ngërëm Serigne Touba amoo dara lu war la saa su ne dafa war a am waaye dafa doon loo xam ne ba at la at ba at nag soriwul si ñun waaye sant Serigne Touba rek si la loo mën a laajee ba tontu ah, macha allah mu mel ni gisee borom Touba. boo gisee borom Touba. boo gisee borom Touba. boo gisee borom Touba. jërëjëf borom Touba

jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba la takkal magalal borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba la hadisu borom Tuuba borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba voilà mu ngi noonu dañuy daal di àndaat rek ak beneen soxna soxna si euh, ginnaaw bu la nuyoo euh, ziar la ndokkeel la. Euh, ren nekk douzième édition. ah kontaan naa moom wax dëgg yàlla sant yàlla ñu defal fay néeg rek ak kontaan rek di ñaan muy gën di yokk rek chaque rek incha allah rabbi. <laughs> gis nañ jigéen moo ñu ko tuur deretam ci l'islam tey ngeen ànd taxawu di sant sëriñ Touba lan mooy seen secret. Ah, làmb ak fu mu jeexee di sant rek kontaan rek mbég mi moom wax dëgg yàlla yàlla nay gën di góorgóorlu rek ba abadan rek incha allah sëñ bi moom lu mu ñu defal moom mënuñu koo fay mënuñu koo fay moom dëgg yàlla fi mu egg mënuñu faa egg dañuy jéem rek yàlla nañ ci yàlla eggale ci rek voilà mu ngi noonu mu nekk euh, jërëjëf sëñ Tuubaa bi nga xamante ni euh, soxna yi ñoo nga ko ànd di ko taxawee mu nekk nag loo xamante ni wax naa leen ko ren moo nekk douzième édition itinéraire bi nga xamante ni moom la ñu jël wax naa leen BRT bii nga xam fi lañ jaar tey bis bu ñu demee ba taxawal ko dina xam ne taalibe sëñ Touba yi jaar nañ fi wax jërëjëfe sëriñ Touba te loolu rek lañ doon sàkku ci li nga xamante ni moom moo di taalibe yi kon jërëjëfe sëñ Touba la ñu ànd ak yéen ginnaaw sikuru la ak xasida yi Baay Faal yi ñoo ci nekk di waxee di taxawaay taxawaay bu am solo jëmale ko ci euh, jërëjëfe sëñ Touba comme ni ma leen ko waxee nag sëñ Abdou Khadir Mbacke te daan wax naan gisul jaamu yàlla bu gën a féete kaw Euh, jërëjëf Serigne Touba soxna yi moom la ñuy wax Baye Fall yi la ñuy tëgg sax loolu lañ junñu maanaam ñi nga xamante ni ñooy jànkatu xasida yi loolu la ñuy wax kon jërëjëf Serigne Touba rek la ñëpp di wax kon de ngeen di ànd ak ñun rek incha allah ñu digtal leen lépp loo xamante ne rek ruuse na fii nga xamante ni mooy journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf borom borom Touba. la jëfee borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. magale borom Touba. magale borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom yàlla na ko liir Touba jërëjëf borom Touba borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom borom Touba jërëjëf borom Touba borom Touba jërëjëf borom Touba borom Touba jërëjëf dara bi tuuba jërëjëf dara dara bi tuuba jërëjëf dara dara bi tuuba jërëjëf dara borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba

Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma, Daraja Barani Duma. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ñu ngi kanam ci ginnaaw ñu ngi kanam ci ginnaaw ñu ngi kanam ci ginnaaw la leen di def ñu ngi kanam ci ginnaaw jërëjëf ñu ngi kanam ci ginnaaw jërëjëf ñu ngi kanam ci ginnaaw jërëjëf Ebor ñu ngi kanam ci ginnaaw Bawfar ñu ci kanam ci ginnaaw Mbooloo Ndigal ñu ci kanam ci ginnaaw ñu ci kanam ci ginnaaw Mbooloo Ndigal ñu ci kanam ci ginnaaw Bawfar ñu ci kanam ci ginnaaw ñu ngi fi yow ci ginnaaw

jërëjëf Thank you. jëfee borom jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. ah jërëjëf borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom. Bamba ko moom. jërëjëfe borom Touba. réew mi Bamba moom fii ko moom. jërëjëfe borom. waaye Mohamed dama yaakaar ne Sénégal Afrique laay wax sax waaye particulièrement Sénégal nangu gi nangu seen Sëriñ Tuubaa mooy nangu dogalub yàlla waaye tamit mooy nangu sant si xéwal bi nga xam ne yàlla defal ñun waa Afrique waaye surtout ñun waa Sénégal jox bu dee fit jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jëfe borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. da ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi nasonal international